wax rek mooy euh, dama koy tënk rek parce que mënu ma mënu ma lépp moo xool li ma wax ci français moo ko ci mais dama wax ni Golf euh, Sud bi ñu ko taxawale ba léegi en tant que commune d' arrondissement mu mujjee nekk commune de de de exercice maire yu bëri jaar nañ fi mais yu bëri jaar nañ fi j'en veux pour preuve euh, que man mi nekkoon naa ci conseil municipal wu Golf Sud en 2002 j' étais adjoint mais jàpp naa ni euh, la ñu waroon def waroon ko liggéey pour askan bi mu jëm ci domaine santé jëm ci domaine éducation jëm ci domaine infrastructure jëm ci jàppale xale yi jàppale jeunes yi pour citer loolu rek euh, vraiment sooxe na lool te pourtant Golf Sud ku ko xam xam ne moo gën a rëy si commune yi Golf Sud moo ëpp ay potentialité Golf Sud moo gën a neex liggéey mais jàpp nañ ni su ñu defee diagnostic bi dañuy gis ni. vraiment liggéey bi ci waroon def defuñu ko ci loolu moo tax man ma jàpp ni naa jël war naa jóg taxaw comme ni ma ko defee toujours parce que aussi fii mën naa wax ne l'asphalmage moo jur quartier yi nekk ci gox yëpp parce que euh, l'asphalmage ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko commencé dëkk en 1974 boobu parcelle amul woon boobu Patte d'Oie nga daan jóge jaar Cambérène ñëw euh, l'asphalmage donc man depuis 74 ba léegi maa ngi fi donc euh, def naa 46 ans maa ngi dëkk ci quartier donc euh, je suis mieux placé pour wax un peu ci taxawaayu Golf Sud moo tax nag ma ne dinaa ànd ak ñoo xamante ni Golf Sud ñor na leen développement Golf Sud ñor na leen pour que élection locale yi ñoo mën a ànd liggéey pour mën a jël la mairie donc. Euh, jàpp naa ni bi ma nekkee ci mouvement associatif bi ndax nekk naa président d'ASC nekk naa zone ànd koog su ma jeune frère ñoom Albouri nekk naa ci ODCAV bi donc permettre na ma vraiment ma xam à peu près jeunes yi di ñuy parce que loolu c'est des mouvements de jeunes te euh, gis nañ ni vraiment jeunes yi am nañu ay ay ay ay ay du lañ manqué lu bare bare bare bare bare bi ma nekkee ci mairie bi aussi en tant que adjoint au maire à Golf Sud de 2002 à 2008. am na ma mënoo permettre noonu ma ma ma ma sillonné Golf Sud yëpp permettre na ma ma rencontrer les jeunes xam la mooy seen seen seen tawat la mooy seen seen seen bëgg-bëgg mais gis nañu ba léegi ñi fi nekk vraiment dafa mel ni euh, euh, jeunes yi soxlu leen amuñu benn politique de jeune donc loolu dañ ko war a corriger dañ ci war a taxaw dañ ci war a dañ war a saafara donc euh, moo tax ma ne man Abdou Ndiaye jël naa décision à partir d'aujourd'hui ànd ak Lat Diop pour vraiment ñu taxaw seet naka la ñuy saafara problème mu Kossy. dinañ ma laaj pourquoi Lat Diop euh, parce que gis naa ni ku bëgg askan bi la ku bëgg Golf Sud la dafa nekk maire avant l'heure man ñëw ma pour defal ko son bilan wax dëgg yàlla. parce que man ak moom ñoo nekkoon sur le terrain en 2014 muy xëccoo muy xëccoo mu nekk tête de liste majoritaire alliance 2014 ma nekk tête de liste coalition Sopi muy wut muy wut mais xam naa ni Golf Sud ñor na ko te moom aussi doomu Golf Sud la ci terroir bi la dëkk fi la fi la màggee fi la defee ses études vraiment ba tey yàlla jox ko responsable yi moom au niveau étatique te muy nekk mu nekk responsable yom solo ba des na nag à partir d'aujourd'hui en tant que membre du parti démocratique sénégalais ànd ak moom ci élection locale yi jàppale ko man ku ma xam-xam ne je suis libéral de sang depuis 86 ba léegi je suis dans la politique amul proposition boo xamante ni rek defaluñu ma ko pour que ma mën a ma bàyyi parti démocratique sénégalais ñëw ñëw ñëw jàppale mais dama jàpp ni man Ablaye Wade mooy sama mentor man PDS laa gëm. kii mun eh, a mën naa ko jël comme témoin mais comme nekk ci ay élection locale da xool ki nga xamante ni moo yor le profil xool ki nga xamante ni si ko jàppalee dina mën a saafara taw bi ñu jàppale ko te man jàpp naa ni mooy le président de la donc jërëjëf donc fu may jeexalee rek mooy euh, Lat Diop dafa nekk maire avant l'heure wax dëgg yàlla parce que yi muy def yëpp tey jii maire bi fi nekkoon la war Lat Diop gis nañu bari gi dem rek offrir na cinq cent permis de conduire aux jeunes jàppale la ñi nga xamante ne dañuy jàng offrir na cinquante bourses pour jàppale leen ci fay seen étude gis nañu maison de la femme yi nga xamante ni érigé na ko bari gi dem pour jàppale les femmes ak groupement de famille parce que li may wax ni yëpp inventé wu ma ko ku ci nekk dañ dañ teg dañ ci teg sa bët bourse yi ñëpp teg nañ seen bët permis yi ñëpp teg nañ seen bët euh, maison de la femme yi ñu inauguré bët ki dem def naa ñëpp teg nañ seen bët sans compter nag jàppale bi muy jàppale poste santé loolu nga xam ne c'est une compétence transférée aux communes waaw ki toog nii conseil municipal la ci Golf Sud santé dafa bokk ci compétence transférée yi mais gis nañ ni vraiment liñ ci waroon taxawee taxawuñ ci noonu laa jóg gis yi am na cinq ambulances xaw trois ambulances yoo xamante ni offrir ko ci poste de santé yi nga xamante nekkul mel loolu état bi la waroon ci moindre degré mu war li nga xamante ni mooy commune bi mais loolu xaaru commune bi xaarul état bi kon ki dem rek offrir na leen ay kii gis nañu aussi jàppale bi muy jàppale lieu de culture yi mooy mooy euh, jàngu bi mooy mosquée yi bër gi dem rek j'ai eu écho avant même ñuy waxtaan dem na ba ci cinq janvier offrir leen une somme de ci église bi offrir leen une somme de de cinq millions pour jàppale leen donc kooku jàpp naa ni ki nga xamante ni mooy def lii te nekkul maire te amagul benn fonction boo xamante ni état moo ko délégué mu def lii yëpp damaa jàpp ni suñ ko jàppale mu nekk maire kon vraiment kon suñu dina am beneen beneen xar kanam donc man loolu moo ma dugal ci ci jàppale ko ñu gis si aussi ci wàllu sport dem na ci lu bari ba ñu dem rek gis nañu ñi nga xamante ni c'est des férus du sport que Guédiawaye football club nekkoon na ci gudda parce que mu ngi ci deuxième division te Guédiawaye football club moom la parce que ñu ngi sommes tous des sportifs man ci mouvement sportif laa bokk ASC La Servance laa bokk ci président d'honneur laa bokk ci membre fondateur laa bokk ñun sport la ñu bëgg particulièrement le football mais gis nañu taxawaay bi nga xamante ni. moom la am ci Guédiawaye Football Club ba tey jii Guédiawaye Football Club si suñu en première division te yàlla moom moo tax loolu am donc ñu ko ciy sant di ko di gërëm pour résumer daal may wax ni tey su ma ànd ak moom en tout cas jox naa ko loxo pour ñu ànd liggéey Golf Sud man Golf Sud moo ma ñor Las Palmas moo ma ñor man ma propre personne ne compte pas mais na naam taxuwaay bu bu bu baax ci jeunes am ko ci famille am ko ci mag yi. am ko ci li de culte am ko ci askan bi en général loolu moo tax ma tàll ko loxo pour ñu liggéey pour ma jàppale ko sama ak samay nit pour que au soir du 23 janvier 2022 vraiment suñ ne 18 heures jot na ñu ne rajo euh, moom la ñu fal maire donc euh, maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp